أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممرك الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان جرين جف مبكي تاربين خامتنا وقتوي ينين بايخل في رنيو بايخل في سي توباس المراخب سي ماغلو خزين خامتنا سرين أمسدو مباكي سون moo ko woote ànd ko óolu xasida waxtu bi ñu ngi si si barab bi nga xamante ne kilifa yi fii la ñuy siyaar si ki nga xam ne sëñ Amsatu Mbàkke wala ñu ngi feggoog Serigne Moustapha Mbar moom sëñ Modou Aminta Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Ibrahima Fall xam naa dañ koy bàyyi ak kàddu rek mu jottali kàddu sëñ Mame Mbaye Guèye jottali ko ko incha allah. waaw waaw ñu ma moo Eh, waaw wax dëgg ma nu wax nga waxee nii. waaw waaw noo waxee rek noonu laay waxee. waaw. neel asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. salaamaaleykum Serigne Moustapha Mbar moom Serigne Mourou Aminta wax na ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ah fay fay xam nga asalaamaaleykum sunna la. Eh, asalaamaaleykum xam nga ne moom sunna la. ci lislaam ci lislaam. waaye waaleykum salaam moom. neexaluñ ci kenn ndax farata la. kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. wa rahmatulahi wa barakaatuhu. joxe kàddu yu nuyoo. noo joxe kàddu yu nuyoo. ak kàddu cant. ak yu ngërëm. yu bàyyi ko ca ka nga xam ne. su ngeen gisee ma jóg rek. dama jóg ngir jóg ngir moom. muy ju jëwriñu sëñ Modou Aminta Fall ji. sëriñ Fallilou Fall. sëñ Modou Aminta Fall. Fallilou Fall la tudd. suy bind aw turam. Mouhamadou Fadilou lay bind. way juróom wu tedd wa nag. sëñ Modou Moustapha. Cheikh Mouhamadou Moustapha. moo waxoon ne. nañ koy wooyee sëñ Modou. nañ sëñ loolu moo ko wax ci aw lamiñam ban dégg ko moo tax nag ñu dee ci nekk nag ñu di ko nettali kookee ma yónni nag di sëñ Fallilu nga xam ne damaa jóg ngir moom yóbbaale naa njabootu Sarafal gépp këri Sarafal yëpp kër goo fa dem sëñ Fallilu mooy taawu kër ga taawu baay nag waay def ci kër bu demee ba lu waay def ci kër baayam. lu waay def ci kër baayam rek. lu waay def moom la ko defal moom la ko dimbalee. ñu ngi dégg ba xam li ñu tax a jóg mooy. ki mu àndal ki mu àndal. sëriñ la tudd. Abdourahim. maa ngi moom ñoo bokk tur. rek la. li ci des ay ay la rek. Abdoulaye. Abdourahman Abdourahim Abdoul Khadir Abdoul Ahad Abdou Sakoor Abdoul Wahab yooyu ay dàkkantal la waaye Al Moustapha la tudd xam nga kër gi day kër sëñ ndax ki fi nekk dafay nekkal Serigne Touba moo tax nag nun nu ñëwee nii nu ñëwe ki ma yónni sëñ Abdourahim Fall moom laa àndal monsieur Yamin Moudou Aminta ak ku ñuy wax sëñ Mourtala Ndiaye ak ku ñuy wax sëñ Mourtala Ndiaye muy sëtum sëñ Mourtala Ndiaye daa bokk ci ka nga xam ne maamam jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji nee na woon. wóolu ko wóolu naa ko. muy sëñ Mortale Ndiaye. maam ja ku siiw tur la. doomu sëñ Mortale Ndiaye mi fi nekk la. doomu sëñ Mortale Ndiaye mi la. ki ma àndal. ki ma àndal. Assaaliha. la borom wax ne. moom la bindoon ci téere ba. kooku nag. dàkkantalu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam la. nun ñi ànd noo bokk wenn tur wi Abdourahman Abdourahim Abdourahim Abdoulaye yonent Yàlla Ismaïla Al Murtada As Saliha mu ne Momar Talla ñëw naa moo téye baar bi waaw ma bëgg wax nag li ma tax a jóg mooy jëmmi see xam si Hamsatu Mbàkke mii. ak xasiday sëñ Bamba yi. dëkk bi nu nekk. dëkk bii nu nekk. day am loo xam ne bu ko as amee. day am loo xam ne bu ko as gor amee. la ko cay may ndam. ba xamee lam am. mooy bu fexe mu fexe ba xamee lam am. boo amee te xamee woo ko. boo amee te xamee woo ko. Sëñ Ismaïla. mu ne yaa ngi dégg li may wax ah? asgor bu amee. asgor bu amee. te xamul lam am. xamul lam am. nu mu koy mën a nu koy mën a jëriñoo. du ca mën a du ca mën a jëriñu. du ca mën a du ca mën a jëriñee. may may bañ nag loolu. nag loolu. dal nu dal ay bal boo ko dee dégg. ay bal boo ko dee dégg. mu sori lool. mu sori lool. yàgg. ba yàgg. muy dal ca përëb néeg ba nga nekk. day jóg fayu. day jóg fayu. day jóg day jóg fayu. da ngay jóg nag fayu. wala nga daw wala nga daw. lenn li lenn li. du ñemee bal. du ñemee bal. néew néew jom la. di dégg ay bal. di dégg ay bal. ba yàgg muy dal ci përëm néeg ba. da ngaa war a génn fayu mbaa nga daw. da ngaa war a génn fayu mbaa nga daw. lenn li kat du ñemee bal. ñàkk jom la ñàkk jom la. ñàkk jom nag mooy ñàkk jomb. ne damaa bëgg. loolu lay bañ mu dal ko. maag ki ma yónni ak ñi ñu àndal bisu xasida ci biir tuba ña ne Ndakaaru ña ne Ndakaaru ña nekk Ndar ña nekk Ndar ca Kaolack ña ci bitim réew ña ne ci bitim réew ñëw fekkee ko ñëw nga nekk Touba yow nga nekk Touba waa Njaareem ñëw nga ne Touba nga ne Touba mënoo fekkee bis loolu murid yi loolu murid yi loolu du jomb. du jombul. xam nga jomb mooy. xam nga jomb mooy. mooy jomb rek itam. mooy jomb rek. waaw yaram xam nga jomb naa nangam. xam nga jomb naa nangam. jomb naa daal ñuy def bisu xasida. jomb naa daal ñuy def bisu xasida. surtout surtout nag surtout Serigne Touba bu baax bii di ko def. Cheikh Hamsatou Mbacké. ma nekk ak moom ci biir dëkk bi. lu ne waay wàll wàll ne waay wàll ji na ko. fii ne am na ñu xëy tey jii. génn dëkk bi. xam nga luñ demam. am ndaje rek moo xam fama fama la. moo xam. moo xam. ngénte moo xam sarax ya moo te génn dëkk bi dëkk ba dem ca. yow nag dara warul ci yooyu. yow nag dara warul ci yooyu. munoo fexe ba ba fekk bis bii. am ma jomb. ne am naa lu ma jomb. yow da nga xàmmee wut jomb. yow waaye loolu du jomb. waaye loolu du jomb. tax a jóg. Ah, sëñ Falilou. daa mun a muñ bis bi. daa munta muñ bis bi. koo muñ lii. mënu koo koo muñ lii itam. moo tax nag mu jóglu. moo tax nag mu jóglu. daa bañ a bokk ci ñooñu nga xam ne. daa bal yi ñëw na ba ci seen kaw. bal yi ñëw seen kaw. te fayuwunu. génnuñu génnuñu. loolu rek taxoon mu yeble kon sëñ Amsatou Mbacké noo ngi ñaan suñu borom mu yàggal ak dundam yàggal seen wér mu sax dàkk te ànd ko man nag ak wér faw bis bii ba bis bii mu yàgg koo taxawee ànd koog ñooñu lislaam ñëpp nag rawatina ñam bokkal pas-pas rawatina ñam bokkal pas-pas. danoo bëgg. danoo bëgg. nun ñii. nu bokk ci. ñi bokkal pas-pas bokkal pas-pas. bokk ak moom pas-pas rek. bokk nga ak jëwriñ Sëñ ji fi nekk. bokk nga ak jëwriñ pas-pas. bokk nga ak jëwriñam jëm moom. bokk jëwriñ ji. muy Sëñ Cheikh Mbacké. moom Sëñ Cheikh bu Mbacké. ku ne xam na ne. ku xam na ne. li muy def li muy def. magam yëpp la ci àndal. yëpp la ci àndal. ànd ànd ci rakam yëpp. ànd kaag rakam yëpp. kon nag ku ci ànd ak moom. kon nag ku ci ànd ak moom. ànd ñooñu pas-pas. te ñooñu nag ku ànd ak pas-pas. te ñooñu nag ku pas-pas. kon nag yàlla nañ bokk ci ñooñu. kaddu yi ñuy wax. suñ la ko wax loowul woon itam. wax ko. ndax ndaw lu ñu yónni moom. ndax bu demee ba fañ ko yónni. faaw mu wax faaw mu wax. wala mu def. kon nag dañuy boole ñaar yëpp. wax ak def wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu kon ñu jox sëñ ali Diop mi nga xam ne moo yor kaddu sëriñ Hamsatu ci mboolem gan gu fi ñëw jiite itam mboolem ahlu xasida yi yëpp nosu nga xam ne bis bii ñoo ko sabab bis bi kat Cheikh Rafal ci jëkk li tax ci mooy sëriñ Xabbaan mu sëriñ Falilu dañoo amoon bisub daayira xidma boo xam ne ci njiitul sëñ Aliou Diouf mi Diop fa ñaar fukki xidma ak juróom-ñett fulkul masoon ak yemu àndal ba ñu noppee sëñ fa sëñ xabaan mu sëñ fallu daal di wax ni man de damaa xamul lu ma leen war a terale terale xaw ma ko yéene ji moom dama koy bàyyi ak sëñ Tuubaa waaye am naa giléem goo xam ne ma nga ca nindi dama koy joxe Cheikh Rafal mu jiitu ci bis bi léegi bi mu fi ñëwee la ko sëriñ Hamsatu ne sa jëf joojee day moo barkeel bis bii te sëñ Aliou mii la bàyyi koo bis boobu moo jiitu ci bis bi kon Cheikh Rafal ci jiitu waaw waay ma ko ma ko loolu waaw xam nga sëñ Mourou ndax xëy na xam nga sëñ Modou Xabaan. baax waaw ne xam nga si Modou Xabaan. daa daa gore. daa gore. xam nga daa boole ñaari maam yii. xam nga di sa maam. Cheikh Rafal di sa maam. kooku lu baaxul lu ne. lu baax lu ne. lu baaxul. lu ne. dana ko jomb. dana ko waaye lu baax lu ne itam. dana ko jomba ñàkk fekke. dana loolu day ko daa gore rek. taxawaay bi mu am ci Cheikh daa xam ne bu dul woon Cheikh kon bisam bii du am. comme ndax duñ gis kan jariñ. ki tax ñuy jariñe kon kenn da xam. ndax ba ci jariñ. bu dul woon Cheikh Ibra Fall. ki waral bis bi. ki nin ciy jariñoo. da nga ko dul xam ba di ci jariñoo. ndax li sëriñ bi andi. ku xam na ne. mooy njëriñul mooy njëriñul tey di ëllëg. suñ borom bind na ko ba noppi. xam ne bu duntan ci àddina itam. suñu àggee bu mujj ba. ba suñ borom atte jaamam ñi. ña sawara say wara yey leen. ña àjjana yey àjjana yey leen. kuréel ba jëm sawara. dëpp leen ci xéewali sëñ waaye kon foofu dong lay amee. waaye doomi ceddi na moo tax mu mudu xaban nag Mouhamadou mii moom sëñ Fallu Mbakke Cheikh Fall di maamam mu dégg nu woote bisub xasiday maamam yii faw mu bàyyi lu am lu mu jàpp lu ne dana ko bàyyi ñëw teewal ko borom loolu de moo tax mu ñëw loolu dong nag doy naa ñëw sëñ Ismaïla wax jii ma wax dëgg yàlla dëgg la fa yàlla dëgg la kët moo tax. kooku jóg ñëw. kooku jóg bu ñëw. di sëñ Modou Xabaan. loolu rek ko tax a ñëw. moo la tax a ñëw yow mii. yaa ko àndal ku nekk. yaa ko àndal ku nekk loolu rek a leen tax a ñëw. Ah, koo jeexal. duñ dag rek. ak li nga xam ne ku nekk dara war ku ne dara war na la ca. nun buñ ko aakimoo nun dong nag. ñi ci des duñ am lu ñu wax. <laughs> jërëjëf Fall yow say wax say wax yóbbaale li ñëpp Fall jërëjëf kon ñu jox sa yàlla yi jóg. أعوذ بالله من الشيطان وطيب المملكة الأوطاني بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان